ngi leen di nuyu ci dalal ngeen may dalal fii ci 7TV bi euh, di wax ne que oui c'est vrai basketball BAL bi basketball African League bi dafa mel ni euh, NBA bu Afrique. Mm-hmm. donc euh, bu ñu amee sunu équipe bi nga xam ne daf ci jongante di ci xeex ba egg ci final defe naa kooku mbégte la ak kontaan pour ñun du yomb final bi parce Euh, Al Ahly du ekk bu ndaw tamit mais Douane tamit du équipe bu ndaw ndax Douane euh, tàmm na euh, di jouer ay grand rôle fii Sénégal. Mhm. donc tàmm na jouer ay demi-finale tàmm na jouer finale moo tax képp ko xamul Douane mën na la bett ndam bi mën na la bett mais ñun ñi nga xam di ko suivre ndam bi mënuñoo bett xam nañ ne ndam bi lu ñu togg lu yàgg. Mhm. ndax bii mooy ñetteelu édition bu basketball African League bi ñaareelu yoon bi Douane di participer mi ngi nii. donc euh, man mi ngi ci bëgg am expérience tuuti. Mhm. donc euh, final bi du yomb mais xam naa ne Douane am na sens pour gagner ko ndax bu dee expérience. bu ñuy waxante ci diggante moo ak ak lii moom moo ëpp expérience ak ak ci ci ci ci jongante bi ñuy jëm.